Euh, asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah dama goon tàmbale ci sëriñ baara sëriñ baara ku la naw la ku la respecté la mais parfois dangay nga dugal sa bopp ci loo xam ne xam-xam mënu koo waa ab jullit nga te jàng alxuraan sëriñ baara ak loo farle farle farle ak loo parparloo parparloo dëgg bu jotee wax ko waaw sëñ Muntaxa mi ak sëriñ si fi nekk yëpp ñun ñëpp suñuy bàyyi lañ suñuy waajur lañ waaw duñ nangu nga toog di ci flaato bi di gërëm ñoo xam ne defaluñ ñu dara du jiitu waa nekk ci mbir yoo xam ne seeni maam ci lañ ko jëlee xam-xam mayu leen ko du leen kër ndey may loolu boo ko bëggee na indi ci république bi dañuy lànk sëñ baara sëñ baara sëriñ si ngay wax defuñu fi dara amul leen duñ fi def supporté nañ la ba tàyyi ànd yow ba tàyyi suturaal nañ la ba tàyyi boo amee problème yëppay taxaw sëriñ si bu deful seen liggéey sëñ Bara doo dem kaso bu deful seen liggéey Ousmane Sonko du dem kaso waaw lu fi suñu bàyyi deful rek lu fi suñu bàyyi deful sëriñ si defuñu ko defuñu ko waaw lu nongo du nongo nag ñoo xam ne bi ñu tëccu ak gaañu ak ñu tëj ak a tijji ña nga toog lekk seen i ganaar nga tax di leen gërëm xay dañuy lànk sëñ Bara dañ lay weddi dañ lay weddi nekk melal na nga melal def analyse yu logique te li ngay wax nga sukkandiku ci alxuraan di ko wax te bañ ko ci ci bëgg waaw fecc ca dem ca Baay Faal lay fecc tax ñu gëm la di ràmbay fëlañ fëlañ yi sañ baara tax ñu gëm la xam-xam lañ bëgg nga indi ko loo xam ne ko dégg xam ne lii dëgg la ñu ànd ca sëñ Muntaxa dama ne defu ci dara amul lenn loo xam ne si def na ko ci pour ñu libérer Ousmane Sonko loolu amut ginnaaw bam na newoon bàyyi leen maa leen ameel bor bor boobu ba nëg nii jotagun ci sëñ baara sëñ baara del si rek nga correct ànd ak patriote ngeen bokk liggéey lépp dana changé bu soobee yàlla tam tegu ci yoon waaye ñii ngay gërëm nag ñii ngay gërëm ma de gisuma luñ fi def wala ma defa ma dara bokk waaw bu may gërëm koy Alaaji Abdou Aziz Sy xalifa général des Mourides des Tidiane Alaaji Abdou sax am na loo xam ne si defal na ma ko du ma ko fàtte sama giirug dund muy sama wëllërew bàyyi defal ma ko man nangu ko waaye ginnaaw lu tegu gumaag loxo ab xalif général waaw nangu gur su ma leen ma xam taxaw faj ko ba ma génne ba ndëgee ni gi suma xam général boo daf ne ma defal nàngam waaw ku dul Alaaji Abdou Si keneen defalu ma leneen waaw man maa la wax li sëñ Baara si da nga koy dakkal te ngeen jublu ci réew mi xale nga dumaal xale ñu dem jàngi xam-xam xam-xam baa ngi ci université sëñ Baara sëriñ si dañ lay tifli ba nga xeen xun waaye amul genn ñaar mën nañ ko dool mu nangu waaw dil si ci alxuraan nga juboo ak ñëpp par parlo duñ ko nangu ah. pour pourquoi nag si waaw yow ne nga ci daara ji nga nekkoon ñun yëpp ñu ko xam daara ak coono bi xale daj ci daara ji tubaab bi fii ñëw indi fi daara yi boppam te dëkkul ci réew mi xool ni organise xool église bi rek ñu seen daara yi liggéey ko ba mu sell defar daara yi ba xale yi kenn du tëccu ah daara yoo xam ne si ah xale yi dañ leen di siif am na ah nga xam ko mu wóorule ah kan boo ko dëgg dëggati ngeen jóg réew yi soppi ko jot na nu ko tubaab bi defar mën na koo defee nu ko raw te tappale yi ñu bàyyi ko waaw seeni maam ak suñu ànd du ngeen suñu maama tax seeni maam mel ko suñu maam bu ñu weddi woon seeni maam tey du ngeen encaissé juróomi dërëm juróomi dërëm din muñ nag bari na buñ juree tudde leen bu ngeen juree tudde seeni bokk waaw bu buñ deelee yéene jiite bu ngeen fekkee suñ kër yéene juy jiite ah am xar sax buñ ko rey fa baax yeneen koy jox mais sëñ Baara loo bëggati léegi ndam di xale yi ndam yi xale yi am da nga bëgg a jël pour lan ah? da nga bëgg jël pour lan ah da ngaa bëgg ndam li pour lan pour lan sëñ Baara. liñ bëgg nga xam ko sëñ Baara si xook ko ki dof si xoo ko dof de dama ne waxal dëgg ñii desee li duñ leen dara sun bàyyi sax duñ leen ñaanal sun bàyyi duñ leen ñaanal te foo ne sëñ Mountakha ñu ne yàlla na fi yàgg te wér. bëgg ko ak sopp ko moo tax nuy def loolu waaye nag loxoy kajoor dañuy juyeeloo taalib yi dañuy soxla ndimbal réew mi soxla ndimbal waaye ñu di ko woy kilifa ak diine ñu jàpp Ousmane Sonko jekk ko mu ne bàyyi leen ko ñu dégg ndigal ba ko kon Ousmane bu ne ci kaso bi suba guddi ngoon war nañ koo déggum du ci yëngutu waaye warul wax ne tëju naa sëñ Bass Abdou xaar man lu mu ma lan lan dañ gëne ana lum mu fi xol lu lu gëne ba ka ba te terrain bi fi doon jox dafa dem ba naan sama kër yu bari sama kër yu rafet yi teewul sëñ Baara nga taxaw di wax di di di xeeb taalibe yi xeeb nu xeeb nu da ngeen a xeeb yi nous sommes des citoyens sëñ Baara avant ñu doon ay dong nous sommes des citoyens sénégalais waaw kenn ku ne nag la nga nàmp sa kër bàyyi yaa xam lu mu doon sëñ Baara bu la neexee di fecc ci di wër sëriñ si te bu nu obligé kenn ah. bu nu obligé kenn lii leen fi boole ak Cheikh Omar Diagne. te Cheikh Omar Diagne yaa ko tooñ xam-xam la indi yow nga indi fanatisme xam-xam ak fanatisme bokkuñu waaw le fanatique à part de l'ignorance fële un intellectuel de par les arguments les utiliser la science une science naturelle pour mën a trouver ay résultats yoo xam ne ci lay sukkandiku sëñ ba xoola ay tiflit mënut a dara ay conteneurs yi tiflit mooy jóge ci dëkk ci dëkk yu tedd yi ngeen di wax ay conteneur TV dafa jóge par année te leen dëwlin jugeen lekk dëwlin yi Chine da jóge te dëwlinu mbaam la waaw amuñu niveau d'éducation bu sëriñ si yàbbi lu rougeal rougeal yi si tuñuy jabar yëpp yow seen baara rougeal yi di ngeen di màcc yëpp mbaam xool lañ ko defaree billahi wallahi mbaam lañ ko defaree seen baara jublu ci sa bopp jublu ci liggéey bi kenn nattab lu la bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko chrétien yi bëgg nañ ko animiste yi bëgg nañ ko jullit yi bëgg nañ ko ñi gëmul dara sax bëgg nañ Ousmane Sonko Ousmane moo bëgglu ku ko xool bëgg ko sa bëgg Ousmane leer na ñëpp waaye nag bu ci boo xool ay ñoo xam ne seen yu nekku ci ñoo xam ne fàdd Ousmane ci la ñuy xëy ci la ñuy reer ñooñu di leen gërëm ak di leen moomale ndam li xale yi am duñ ko nangu de ndam li xale yi ñoo ko def te nga gërëm ambassade des États-Unis dama ci xam lu wér waa am quarante deux ans quarante trois ci dëkk bi dama yàgg de damay depuis quatre-vingt-deux ba ndegi nii maa ngi fi xam na mu demee waaw américain lii ñu def ci Ousmane Sonko yéen sax xamu leen ko nga naan ma sëñ nangam ak sëñ nangam sëyi na dakk waaw na dakk waaw Cheikh Omar Diagne sa morooma demal nga fekk ko ca parti ba ngeen bokk liggéey waaw ndongal daal yéen waa dem leen fekk Cheikh Omar ngeen ànd bokk liggéey moo gën sëriñ si ngay jël ñu den teflee ko def yëf day dakk de xale weet dañ lépp waaw maa ngi jéggalu dama naa recadré naa ko recadré rek mais nit ku baax la xëy na loolu la gëm mooy philosophie am mu waxee noonu waaye lam gëm na ko gëm téye ko noonu daal liñ gëm léegi mooy ànd bokk defar Sénégal xale yëpp jóg sukkandiku ci xam teg fële ay tiflit teg fële ay doon ay góor jàngi ñëw ànd defar réew mi te su lislaam ji ñu defaraat ba mu baax ba mu normal ñu téye ko defe ko ni ko nu sunu bëggee kon nu continuer waxtaan ñu door waxtaan ñu door waxtaan asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé euh, bu la conscience euh, ma dir rek en tant que sénégalais un citoyen bu am droit ci am réewam am liberté d'expression te it war na joxe opinion fu mu toll mu doon argument ci pinc mi ba nii mën ko waxtaane dafa am lu naqari te metti ñu te ñin koy yóbbee yóbbe mooy suñ kilifa yi diine yi ñii ngeen di woo ay kilifa yi diine kenn weddiwu leen sagal nañ leen teral nañ leen lépp loo xam ne nit mi ngi koy defal ku baax defal nañ leen ko dem nañ ba di leen raamal di leen duy ñaari loxo am na ju xër ba di leen wooye yàlla kon am naa yaakaar ne ah, deseelatuñ leen dara waaye nag nit lañ koy wooyee lañ koy wooyee ah, da ko war a nuru da ko war a nuru la ñuy séenu ci yow ah, des ko war a gis waaye yàlla dogal na at i xalif généraux yi nga xam ne ñoo tombe ak Macky Sall amuñu ndam wala échoué nañ ci seen liggéey échoué nañ ci seen liggéey ndax réew mi ni mu tëddee ak philosophie bi ñu am ci lislaam philosophie biin am ci tarixa yi philosophie bi am ci ñi nga xam ne ñoo jiite tarixa yi tey buñ demee buñ demee ba xale yi génn xam fi defu bi ne xale yi di ko wax xale yi di ñu dara ci ñoom la xale boo koy dóor xel me day dem càkk ko war a wàllu Sénégal nag bu ñuy dóor ñun ñëpp suñu xel day dem ci xalif généraux yi waaye yàlla dogal na yàlla dogal na ñii fi nekk ñii fi nekk nekkaluñ fi askan wi seen bopp lañ fi nekkal ma bëgg nag ñu doon ay nit ñu doon ay nit bu mettee nu jiiñ yàlla bu baaxee ñu jiiñ ko ay nit loolu dafa war dakk Ousmane Sonko mi ñu téye ci kaso bi bu fa jógee bu fa jógee wala Macky sal reyu ko reyu ko du xalif généraux yi déedéet defuñ ci dara dara lañ ci defut booy ñu gërëme ko américain yi li ci américains yi liggéey man ma nekk fii aux États-Unis xam naa ko ambassade des États-Unis ñu ngi koy remercier ambassade des États-Unis dama ne liggéey na ci liggéey boo xam ne ak di may bët Ousmane Sonko ak di ko rendre ak di xool ak di gëstu ak di informer américains yi waaw bu doon kilifa yi diine yii yii ba tey Ousmane Sonko suul nañ ko deena bu yàgg bàyyi leen nag bu Ousmane génnee wala génn génn di gërëb bu leen di gërëm benn xalifa amul xalifa bu ci def dara dama ne xalifa yi bu nu sañoon bu nu sañoon Ousmane day faatu. billaahi wallaahi seeni teraanga ak seeni tariixa moo leen gën a ñor Ousmane Sonko réew mi intéressé wu leen te li ñu am ci réew mi nun ñu bokk moom réew mi munuñ cee jot li fi nekk nañ koo wax te bàyyi ngoon ngoon yi réew mi day soppi ko dañuy kaase système bi. defar meneen réew moo xam ne kullu kudub sénégalais boo lambee sa yaram boo làmbee réew mi daj sa bopp boo làmbee réew mi daj sa bopp Ousmane Sonko mii nag eh, yàlla ko fi indi yàlla ñu ko jox yàlla ñu ko sargale yàlla moo ko wàccee boole ko nag xale yépp bokk ko bëgg waaw jëf ci ñaaw ji nga xam ne def ngeen ko dem àndi ak France waaye foog ngeen ànd ak France foog ngeen ànd ak France dama ne 1896 ca jaloog bu njëkk ba dialogue bu njëkk ba seeni maam la ñu waxoon tubaab bi xam nañ ko waaw réew maa ngi ne ma fabal waaye daggaluñ ci penk boo xam laañ fi mën a jaamu yàlla daggaluñ ci tool yoo xam des fa mën a bay dundee waaye réew maa ngi noonu fabal li fi nekk dañ koo wax tey yéen xale yi bu ngeen war a jóg avec cette nouvelle technologie de l'information avec cette science artificielle la biologie ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën ngi sukkandiku développer seenum réew ngeen di xaar leen tifli ngeen diwoo ko xale yi du ngeen nit seeni bàyyi seeni jaan wàcce na ñun buñ jure sëriñ si lañ koy tuddee bu ngeen ñëwee suñ kër julli jot yéen a jiite buñ juree yéen lañ koy tuddee bu gàmmo jotee buñ reyee nag yi fa gën a duuf yéen lañ koy daggal seeni soxna dañuy raam wuti leen ñun analul leen deseel ndax ay nit lañ de xam na ni mu demee xam nañ ko waaye daa fekk muy aada ju fi seen maam laloon te du diine a la ji fi maam laroon ñu nekk di ko topp comme kuy añee ceeb di reere cere wala yu demee noonu waaye nii ngeen def ànd ak tubaab yi nii ngeen ànd ak tubaab yi ah ba toroxal askan wi dama ne Ousmane Sonko bu génnee ci kaso si ne nekku ci yéen taalibe yi di chronique yéen taalibe yi chronique ah dimbali leen ngir yàlla bu leen fi invité benn sëriñ wala tudd benn sëriñ seen diwa benn sëriñ si amul kenn ay complice lañ sëriñ si ay complice lañ ci téye Ousmane Sonko amul ku ci ma masa xatraay nañ ko ba waaw bu jëlaat suñ réew nag nekk ci jàmm ngeen fi toog muy dox a fii def déedéet toog muy dox jeex na tàkk li fi nekk dañ koy wax bu dee sëriñ wala sa baay di sëriñ wala sa maam di sëriñ man jaaxaanke piir la ca l'empire di Mali l'empire du Ghana l'empire du Songhai la wasalu ba ba ngay dugg ba ngay l'empire Mandeng ba ba ngay daanu Sénégal oriental ci l'empire jaaxaanke kon bu ngeen ak lislaam rek lislaam bu ngeen ci jotee bu ngeen ci jotee na xoola bu doon sa maam bu doon sa rek damay bàkku mayit ne lislaam bu ngeen ci duggee sa maam a tax ndax le les premiers qui ont embrassé l'islam c'est l'empire Diakhanké la seule communauté dans le monde dans le monde cent pour cent musulman Diakhanké rek moo fi cent pour cent musulman dans le monde naar sax am na yéeféer xeet woo dem am na yéeféer ak leneen Diakhanké rek moo fi cent pour cent musulman te ñi fi jëkk indi ay daara taali daara ñooma kan waxante dëgg te seen kaal yi ngeen dindi ko nekk ay nit la seeni maam bëggoon a xam nañ ko seeni maam gëm nañ leen ba tey dañ leen a gëm de dañoo gëm seeni maam bëgg leen sopp leen xam ne d'accord ay erreur mënta ñàkk defoon nañ ko ndax nit ku dul juum amut waaye teewul kan daañu leen delloo njukkal waaye yéen bu ngeen bëggee yeb fab seeni tànk gàllanu ak ñu leen boot di wër dëkk bi ndax ngeen seen bopp benn dëkk rek benn dëkk képp moo fi taxaw xeexal Sénégal muy les États-Unis mu réew meenum réew américain rek a taxaw ne Ousmane Sonko bant bu ko laal Macky Sall da nga dugg tey bu ngeen amee élection Macky ñeme jàpp élection conseil cons daw dellu ginnaaw ginnaaw yàlla ak yonent bi ambassade des États-Unis moo tax sëriñ si defuñ fi dara lekk alal lañ fi nekke waaw nappaaje seeni jeeg nekk seen jàmm amulun nu njariñ te maa ngi défi je défi tout un sénégalais ne kenn ci yéen jóg rek laalub dëndam ne ma lii sama xalifa defal na ma ko waaw xanaa mu sa mbokk mu dimbali la waaw li fi nekk nañ ko wax te ngeen jóg ji yàlla li amoon dootu am Ousmane Sonko bu fekkee ne jom dëgg ngi dëgg nga ci moom dana moy ñii ñii ñoo ko def ci kaso bi won ko ginnaaw seetaan ko bu fi kenn gërëm kenn naan diw mi ngi waxataan ak di wax naag Macky waxuñoo Macky Sall du dëgg ñoom ñoo digal Macky Sall sax dialogue bi ñoom ñoo anticiper dialogue bi li ci ëpp du dëgg lii ma leen mooy am waxum yéen nag fun dale ci ñii ngeen a tarixa ba lañ dal fun dale ci ñii ngeen seeni maam lañ dal daluñu maami kenn waaw dañoo gëm Alaaji Malick gëm sëñ Tuubaa bëgg leen gëm Baay Ñas bëgg leen waaye ñii fi nekk ñii fi nekk billaahi wallaahi ils ont échoué ils ont échoué catégoriquement te réew mu dema gaz gaz bu gaz bu ngeen toggee rek amu leen ko te Sénégal doon troisième puissance mondiale ci gaz tey dëgg jigéen yaa ngi war gaz bu ñu toggee daje li nit ñi di leen nax waaye nax yeex na tàkk Ousmane Sonko xoola Ousmane Sonko lii ñuy wax mooy am le système dañ koy briser waaw Sénégal noo ko moom réew mi dañ ko war a tabax mu mel ne Koweït dañ ko war a mën a tabax mu mel ne Dubaï dañ ko bëgg a tabax mu mel ne New York gii bu nu kenn fonto kenn ay nit doon ay jullit te suñ mbokki chrétien yi ñu fonk leen fonk leen ci société la bokk ànd ak nun te booba nëgëri ñoo fi wax dëgg waaw alal jii nañu jëloon def ko ci kër sëriñ si te moomunu ko moomunu ko dañ koy nangu ku fi sa maam ku doon ay suuf ci sa maam te sa dañ koy nangu suuf Sénégal yëpp ko moom Ousmane Sonko da koy nangu par force dara la ci Ousmane Sonko mënul dara dara la ci mënul daañu taxaw képp ku fi doon loxo xam ne moomu ko danañu ko foqar ci say loxo fay la impôt nga ay tool doon bay la kenn duñ fonto xanaa Ousmane doon na ci kasu bi ñii seetaan la ba nga génn tax di fa raam ak sujjóot bu ma la fekkee nga raam aw yet laa lay dóor billaay Ousmane Sonko bu la fekkee ngay sëgg di raam ci su aw yet laa lay man dañ laa wote pour jubbanti réew mi dañ laa nga defar réew mi dañ laa jote pour nga ànd Sénégal yi liggéey heure bu ma la fekkee nga sëgg di raam Ousmane bu ma la jekk naa dóor yat waaw jógal nga futtiku ànd ak sénégalais yi surtout set jeunesse sénégalaise bi jóg taxaw fa yéene liggéey kenn waxu la nga saboté diine kenn waxu la nga saboté tarixa kenn waxu nga ñàkkal fayda tarixa yi waaye ñii fi nekk ñii fi nekk amalun nu njëriñ amalun nu njëriñ bu ma leg séené nga di leen raamal te ma jekko la danaa dóor aw yat man américains yi nga war raamal boo dem ambassade des États-Unis raamal ba dugg ci biir boo demee ambassade des États-Unis raamal ba àgg ci biir ñii ñoo la sowe ma xam ci lu mu wér nekk fii xam na mu demee waaye je suis trop informé maa ngi jégal bu baax te ziara. yéen ci plateau yi di fenn di fenn naan sa maama dem feek sa maama jaar fii loolu day dakk Ousmane ngi di fe géwél yi ci plateau bi dañu leen dàq ñu ñëpp ñu dem waaw ku fi nar a gërëmub sëriñ gërëm seen sëriñ si ah gërëm leen state département mais Ousmane faatoon na bu yàgg Macron gën di doomeeram ñëpp te yéen kilifa yi Macron gëm du ngeen ay kilifa sax waaw parce que liñ leen wooyee liñ doon doy matu leen ko parce que feeñ na Sénégal gaz gaz képp bu jigéen ñi toggee amuñu ko mbaam xuux mbaam xuux la kilifa yi reere añee doo dem ca jumaa ja diwlin ju bon ji ngeen di lekk lekk bi baaxut ngeen war a am fulla taxaw topp koppari àdduna ak jigéen jeeg kat kat yeeg yu bon yi ba sànq askan wi waaye am naa lu mën a xarit trop am naa lu mën a xarit trop waaye bu ngeen naree gërëm gërëm ñii dama ne gërëm den ambassade des États maa leen wax loolu man Ousmane Dramé xam ci lu waaw te kenn di leen jéggal jéggal moom jeex na jéggal jeex na waa te li ngeen uuf doon na ko mooy ay tool li ngeen moom da ngeen ko delloo waaw dama ne ku ci doon loo mu sa baay mu wala sa maam mu la ko delloo réew mi noo ko mu ay Sénégal bu fi kenn gërëm kenn ñu fi dara Ousmane Sonko américain yi ko génne ak sénégalais yi waaw les patriotes sénégalais ñoo génne Ousmane Sonko ak waa Pastef man la Seydina Ousmane réveiller conscience yàlla nañ buur yàlla suturaal yàlla nañ buur yàlla suturaal te di jàmm ci suñu réew mi natt bii ñu doon yàlla ko buur yàlla teggi ba Sénégal bu ne ne ci jàmm ñoo am lislaam yu normal te ànd suñu boo chrétiens yi ànd tabax réew mi jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf